enfin ñu ñëw si euh Abo Mbacké ñu gën ko xamé ci ki nga xamné que modi Amir Abo alors euh, dernière minute nak les enquêteurs de la DIC di division des investigations criminelles la danoo def ben perquisition ci këram alors ban fa démé nak mbokk yi euh, fekk neen fa lu bari lo xamni ni itam. Euh, moom euh, le euh, abo dadi yoré bien beaucoup passeport diplomatique sénégalais numéro 21 PD 14881 mu passeport de régime bi fi le 14 mars 10 jours avant la présidentielle de na waar passeport diplomatique 10 jours avant la présidentielle alors euh, Bataille, d'après les nga la même source enquêteurs euh, ont mis la main euh, sur des autocollants marqués ay excellence Amir Abo spécial étant donné d'autres et tant d'autres yoo de alors Bataille, les initiales MBS aussi gis sur le prince héritier d'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman

escroquerie et blanchiment de capitaux enfants? alors euh, dossier sur dossier nee naa le temps dossier bëri na trop man seen jàng daal qui si miro ki nga xam nekk euh, euh, la perquisition bu si on nga xam concrètement mais est-ce que Mbacké Mbacké là je pose la question est-ce que Abo Mbacké le tout wala Mbacké boobu man mon moom moo ko joxe officiellement parce que man Abo Mbacké c'est Abou xam sëñ Abo Mbacké la te mu doon sama sëriñ. waaw man affaire bi jaaxaloon mu doon mu doon mu doon frère ci ñoom sëñ Fallou et autres. man affaire bi jaaxaloon na ma daal man sëñ Abou Mbacke ñoom ñoom ñoom sëñ Abdou Abdou Karim Mbacke. Hmm. mu doon seen mag. yaakaar hmm, na hmm, man sëñ Abou Mbacke boobu laa xam. maintenant bu fekkee <laughs> émir. <laughs> ñun Sénégal kan la am ay émir. doy na waar. <laughs> ah Fallou. <laughs> man maa ngi doog a dugg maa ngi doog a dégg tur yooyu émir si émir sëñ Abo Mbacké ñun Sénégal kal la am émir. am nañ émir nag. am nañ émir damay poser question am nañ émir dama bëgg xam ñun Sénégal kan la am émir ay émir ay amir am Mbacké waa Touba kan la am émir Mbacké émir <laughs> alors maa jégalu waaw. moo tamay laaj ndax tour ndax sant mbàkke mbàkke bi judduwaale la mm. wala moom moo ko joxe boppam wala daf ko dàbb mm. parce que aussi nous on est des journalistes abo mbàkke bi ngeen di wax ni émir te ñu décl ñu yàgg a déclaré ni que il est l'envoyé au commandeur mm. euh, le représentant du prince et premier ministre saoudien Mohamed Ben Salman en Afrique ñun am na as tuuti lu ñu xam. ok Arfan loo xam si dossier bi. non non non dossier boobu mu ngi ci loxo yoon. jaru ko. mais loo si xam concrètement Arfan. non non moo tax gis nga xam nga fàllu. Hmm. dossier bu nekk instruction. wala dossier bu nekk ci loxo yoon. Hmm. jarul ngay tardé di wax leneen. lo même ça peut même ça peut même révéler les secrets les secrets de. l'enquête de l'enquête mais mais sur sur sur la forme par rapport à dossier. oui mais à la forme. ak la la forme lan lañ ko tapé escroquerie là ah, suite ak toi. même ce même Abo Emir bobo avait été condamné. en 2013. Hmm. Hmm. pour les mêmes délits escroquerie de 25 millions. escroquerie de 25 millions moo tax ma ñuy ñëwaat ci dossier parce que ça est pour les besoins d' enquête les officiers de police judiciaire ñu ngi yoree dossier boobu. di mm. enquête. Mm. moo tax ñu mettre ñu mettre ko en garde à vue. Mm. mais fa da nga lu am solo da nga ne est ce que euh, euh abo. non la tudd non parce que li am na. ça la réalité C'est ça la réalité <laughs> moo tax est ce que Mbake Mbake boobu. mbàkke ci sant boobu judduwaale la. mooy maanaam daf ko donn ci baayam wala kon moo ko jox boppam wala moom moo ko jox bopam wala eh. mom moko jox bopam parce que tantôt selon les les officiers les enquêtes ce qui a été révélé un peu yayom mm. yayom mm. wo nañ ko pour ñoo def des témoignages sur les liens parentaux C'est pour ñu y a identifier cet individu yayom wo nañ ko ki ko jur ki jur emir Bobo? on nañu yaayam mu ñew témoigner ñu ne ko yo yaa jur kii mu ne waaw ki nu mu tuddu parce que il paraît que il paraît je dis bien il paraît que il y a une différence ci tourne ah bon oui il y a une différence ci tuur yi moom tuur bu mu joxee ni que moom lay wuyo ak yaayam tour bu mu déclarer ni que sama doom la man maa ko jur tuddul <laughs> tu vois tantôt dans la presse on te dit emir Abo. Mbàkke yaayam ne nee na sama doom sama doom tuddul mm-hmm. loolu. ñu koy garaawal <laughs> di koy yëggal <laughs> ñu àndaa ko moom ñu koy garaawal yaayam ñëw ne leen déedéet man sama doom tuddul émir Abo Mbàkke déedéet samay sama doom Abo Sil Sil la tudd mm. la tudd sa santam mais santam du Mbàkke Mbàkke. alors mais avant moi il y a un problème. mais avant dans son dossier. mais avant, euh, la justice n'arrive pas à identifier les deux personnes. tantôt Abo Mbake, tantôt Abo Sil. Abo Sil maintenant Sil Syl, Sil. voilà. Ah, maintenant ah madame voilà Sil Bobo, <laughs> Sil Bobo, on n'arrive pas à identifier les deux personnes. donc Mbake bi pose problème. Mbake bi pose problème bi. ok. Mbacké bi mo posé problème bi. mais est-ce que nekkul avant avant d'abord d'abord d'abord tu l'idée mais est-ce que nekkul mais est-ce surnom. d'abord tu l'identification de la personne. bala ngay ñëw ci le délit ce qu'il a fait bañu bañu bañu bañu ba mettre ko en garde à vue hmm. li mu doon wuyo té mo am ay journalistes yi non manipulateurs yi ko doon jappalé ci dossier bi ba pare ñi bëgg sétal sen der dem len jël laaj Cheikh Yérim Seck qu'est-ce qu'il a à avoir avec ce dossier lan la si dama Cheikh parce que dossier bu nek mom tak na ci. vidéo bu mu Cheikh hmm. ni que il est la personne idéale consultant xaw lan représentant de quoi xaw di prince héritier et premier ministre de euh, Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman Cheikh yirim sek a fait une vidéo sur abo mais à la grande surprise bonjour ñu c'est Cheikh Yérim Seck nee connaît pas le gars nee ne connaît pas ce Abo là pourtant dans na vidéo boo de ci internet ça beaucoup ko des di nga gis Cheikh Yérim témoignage yu mu doon def ci mom Abo ce émir non non damay respecté damay est émir <laughs> pardon <laughs> damay respecté damay ne léegi Sénégal am na émir bu bees émir waaw doo non émir la émir émir émir Qatar ah Sénégal les Sénégal moom am na émir. mais moom ñu commencé mais va donc si toutefois euh, euh, li nga koy toppee nekk vrai escroquerie donc mën nañu jàpp ne si amoon appui état bi fi jóge woon parce que nous avons un passeport diplomatique dañ ko laaj à 10 jours avant la présidentielle donc nous ko protéger donc ni à l'exemple de sa abo il faut Macky nous ñu protéger donc ñu ce passeport diplomatique il faut demander pourquoi Macky Sall l'a donné un passeport diplomatique il faut demander pourquoi Macky Sall jox un passeport diplomatique hmm. est-ce que ce abo Emir là c'est un diplomate sénégalais je ne pense pas. mais ce n'est Cheikh nee na li muy liggéey la lu muy liggéey lan ban dombal tank la am ci Sénégal ban. dama bëgg Cheikh Yérim Seck ñu ben ben bu abo émir bobu nu mu le Sénégal ne serait-ce que benn dama bëgg ñu wax ma bi la liggéeyal Sénégal bu wara a tax ñu jox passeport diplomatique. je veux que personne mom moom ñom ñoom ñu défendre ñom Cheikh Yérim Seck. et mm-hmm. l'autre dama bëgg ñu wax ma ni que sa abo émir bobu li la liggéeyal Sénégal ci jamono Macky Sall bu wara tax ñu jox ko passeport diplomatique Bob boobu moy ben ak lan mo nekkoon liggéeyam fi Sénégal dama bëgg ñu wax ma bi la bi bi li moy liggéeyam fi parce que dañu ne homme d'affaires la xawma lan administrateur de société xawma lan. léegi man lan moy liggéeyam sa émir là parce que émir bu bees mo juddu désormais Sénégal ñun commencé nañu am émir bu bu len am surprise sa man suma ma déclaré sama bop ni que man émir là arfan émir oui donc voilà voilà ces dossiers là yoo xamante maintenant eh, l'ancien régime a la protégé di joxe ay passeport diplomatique comme de petits pains, di distribuer ay passeport hmm. diplomatique comme de hmm. petits comme de petits pains. Ni, ni, ni, ni. alors mais non, non, par hmm. rapport à li nga xam ne que moo donc fàll euh, fu may tëjee dama ne dossier bi mu ngi ci kanamu yoon kanamu yoon donc nañu bàyyi yoon def liggéeyam ci ci parce que tu as libéré woon na tantôt Cheikh Yérim Seck wax na li tantôt euh, la grand là. Attends, Baye Cheikh euh, Babacar Touré. Kewlo wax na li tantôt dugal nañu fa tuur Matar Diop Soubatel. Hmm. tantôt tuur Macky dugg na fa. tantôt même ñu dugal fa tuur Sadio Mané. Hmm. ah ñu ne Sadio Mané waa ji def na vidéo ak Sadio Mané lii ak lii ak lii ak lii donc loolu yëpp comme mu ngi ci loxo yi yoon. nañu bàyyi yoon def liggéeyam. Hmm. bu lépp yembee léegi yeneen information yi ñuy am dinañ ko joxee fii. Hmm. incha allah.

Euh, sur les antennes de Sénégal 5 TV tolluwaay réew mi li tout seul, actualité alors enfin